département de Dakar il y avait d'autres candidatures et j'ai dit man bi muy waxtaan ak président j'ai dit après évaluation je pense il faut qu'on aide Diouf Sarr bàyyi ko donc yow d'accord woon nga ci choix wu Diouf Sarr amatu woon frustration je l'ai appuyé je l'ai aidé dama ko jàppale naa ko ci dimbali naa ko ci maintenant c'est vrai bi élection yi passé euh, quand on a perdu il a fait ce qu'il devait faire bon après wax ci woy Amadou Ba jàppale wu ñu. wala que vous les avez combattus xam nga xam nga xam nga. Euh, wax naa ko keroog benn secrétariat euh, nekk ci benn avion euh, jàpp ni mën ngaa taal avion bi waaye yow mën ngaa mucc ci avion bu daanoo dal xel weesuwul loolu. bu ñu amoon peut-être Dakar en son temps bu ñu gagné woon législative yi en tout cas ci proportion yi ñu ko amee woon xëy na situation bi du am man sama teraanga maa ko amee ci régime Macky sal donc ku mu mënti teg à Dakar Pikine ou Thiès ou Tambacounda ma dama ko war a jàppale et c' exactement le type de relation relation yi la am ak tous les responsables de l'APR et de Benno amu ci kenn ko xam ni quand on me diw nee na nii wala diw nee na daf may daf may jaaxal parce que du lu ma nit du lu ma nit ki di won wala li ma seq ak nit ki wala boog yéene sax bu ma am xam nga yenn saa yi dinaa toog ak nit ñu ne ma diw daf la mere diw wax na lii diw nee na da ko yàqal li euh, ma teg tekki ne ko la ma ko yéene yàlla naa ko ci jiitu pour clore le débat parce que day fekk la ñuy wax ak man li may xalaat ak la may dund benn. mais mais eh, eh, eh, moo tax yenn say je pense même yow mos naa laaj une fois nga may ree ma ne la mais may mun a gis daje ak benn Amadou Ba bu dox ci mbedd bi bu wuteeg Amadou bi tëdd fii. je pense que mu la ko laaj. <laughs> parce que ma ne ko parce que c'est comme <laughs> parce que nit ñi bu ñu la xamulee surtout bu nekkee sa wax bariwul. Euh, on te prête beaucoup d'intention bon wax ju bariwul xëy na noonu lañ ma yare bu ma xamul dara dama ciy maandu su ñuy wax loo xam ni jàpp naa ne fi mu jëm rafetul damay ne tekk déglu nit ñi bu ñuy wax parce que am na yoo xam ne baaxul. mais mais xam nga xëy na teg bu Diouf Sarr nekkoon maire de Dakar. waaw. Euh, don bi dina changer dina metti. est-ce que nga foog loolu dana ma tere nekk premier ministre. mën na nekk aussi mais pourquoi ñu war a dund ci àdduna boo xam ne bu kii amee kii du am. non pas mais on est en politique mais mais politique du sauvagerie parce que ñun am nañu ay valeurs attention lii sama wërsëg mais keneen mënu ko lekk lii wërsëgu Diouf Sarr wala Ablaye wala ku mu ti nekk à l'intérieur de la paire keneen mënu ko lekk mais le soleil brille pour tout le monde man yéene woon naa ko j'ai dit au président nañ ko jàppale xam nga xam nga. mais ça calculu xam nga combinaison yooyu moo ñu indi jafe-jafe. bu diw amee lii diw day ñàkk lii mais ñun ñëpp mën nañoo am te du wàññi suñu borom dara. mais xalaatoo ne. Euh,